bawoo ca Côte d'Ivoire ga mu jiite woon ndawi CEDEAO jëm ci wàllu ceetlu ñeel élection yëf li xew fii ci wàllu tolluwaay politique Sénégal nag ak paluk Idrissa Seck ne njiital CESE mu ne yëgul tinul ñu fàttali ni Idrissa Seck la àndaloon ci présidentielle 2019 terewul nag mu ne adduwu ca day xaar ba gisa ki ay farandoom ki àndoonam ci wàllu politique laata muy yëkkati uh, xalaat jëmee ci boobe tolluwaay ci Sénégal rawatina ñeel parti réew meeg duggam ci gouvernement bu président Sall Cheikh Hadjibou Soumaré ak Abdourahmane Diallo coalition Idy 2000 ay góor ñu ñoo ko seq ay gor ñoo ko seq damay insister bu baax ci loolu ay nawle ñoo ko seq gor ak nawle buñ ko seqee bu dara amee dañ koy waxtaan man nag dama voyagé woon maa ngi door a ñëw xaw ma nan la demee lu tax nan la yi demee ba lii am xawma ko donc damay maandu ba ñu waxtaan ma xam nu mu demee bu boobaa danaa wax li ma xalaat alors man toog naa ma dégg ñu ne coalition Idy 2000 bi sey na ci kii déedéet déedéet déedéet Idrissa Seck moom nekk na président conseil économique et social ñaar ñoo xam ne ci parti am lañ bokk ci li ma dégg bokk nañ ci gouvernement bi keneen kan moo ci bokk si si si kii man de man maa ngi ci télévision xam bu bu foofu laa ko yëgee laa ko yëgee Idrissa Seck gëj nañu wax balaa may jógee ndakaaru te ay eh, toog nañ lu yàgg sax waxuñu balaa mooy jóge Dakar loolu moom mun naa ko wax parce que du fen boobu xam naa ne dañu dañu amul woon ay réunion mais daal loolu mun naa ko léegi nag lii xawma vraiment nu mu demee damay màndu ba waxtaan ma xam Cheikh Hadjibou Soumaré ak yegsem démb ci ndakaaru day màndu ba xam li xew mu ngi bawoo ci Côte d'Ivoire ci pàttali ci kaw élection yëpp woon day njiital mission électorale bu CEDEAO euh, ngir moomeem réew